Heavy Mess.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 daal moo yóbbu soxnam si di yoo ci turu a jàllo ci yoon ndax daal waa ji ne soxna si daf ko jàpp duma ko duma yu métti ci duma yu métti yooyu mu ko duma sax jural na ko ay gaañu-gaañu yoo xam ni tere na koo liggéey toll ci juróom-ñaari fan ay waay li mooy violence faite jëkkër ji ne soxna si bi mu koy duma daf ko blessé ci yaram bi yépp ne bu doomam bi gaawul woon jóg atte xaw kon musiba dal am ndax dóor yu metti yi ko ndaw si doon dóor waa ji yokku ci ne jabaram ji respecté wu ko benn yoon waxtu wu ko neex lay dem waxtu wu ko neex lay dikk ke buy génn du tàggoo <laughs> ma ne ko neexul ci xool de te ne ndaw si bu koy jëf-jëf ju metti jooju ndaw si ci boppam moo ko attaqué <laughs> <laughs> am na góor yuy dee ci kër yi de waaye ndaw si tamit ci kanamu yoon tontu na jëkkër ji de ndaw si ci boppam nee na jëkkër ji ci boppam moo ko respecté wul hmm. waay ndaw si ne saa buy dem jëkkër ji da koy topp te nee nag commerçante la te neen coono bi muy daj yëpp di ñafe defu ko lu dul ngir dimbali borom këram ndaw si teg si ne jëkkër ji 1000 francs la koy jox dépense ak dëkk bu metti bi su ko defee saa yu ko joxee 1000 francs moom mooy xëy ñafe teg ci dëbb dëbbal ba togg tegal ko lu ne fatt taraj mu lekk ba diixal biiram raay ko la mooki doomam ay way way way yàlla ñu yàlla may ñuy am dépense lii ndaw si ne jëkkër ji topp gi mu koy topp yenn saa yi daf koy topp ba marché bi muy jaayee dal di koy indil giite ngaaf toroxal ko ci kanamu moroomu commerçantam yi ba mu ne tott laa wax mu tekki ne nag jëkkër ji waxul dëgg jëkkër ji ci boppam moo ko attaqué dal koy songu ne bu défendrul woon boppam jëkkër ji ci boppam mën na koo rey <laughs> ma ne ko moo tax kuy takk karaté kaa wala yenn géej yi <laughs> booy boo leen di songu teel laaj bi nag mooy ñaar ñii kan moo ci wax dëgg li doy waar nag bi procureur appliqué yoon ci kanamu ndaw si laataa mu koy sermoné M Balde di jëkkër ji moom ma ngay laaj ñampaayu neuf <laughs> yu ko ndaw si war a dàmpee laa wax moo tax bi mu ko laajee cent mille yi assistance ba kenn mënatul téye sa bopp ma ne ko neuf kay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Wakaam ca cité ba train romb na doy war moom daal léegi foofa ñoxar njaay rek ay nit yu armé wu songu leen nee na nag songu googu ñu leen di songu ma nga fay wulee ñaay te def katu ñaaw te fii def loolu ay ndaw lañu te buñ leen di songu ay pistolet lañuy yor songu leen di leen agressé saa su ne te nag seetlu nañ ne saa buñ defee seen njombe loolu fa ñuy daw dugg mooy ancienne piste ba fi mu ne nag ñu ngi njortu ne def ñaawkatu ñaawtef yooyu ca ancienne piste ba la ñu loosee fi mu ne nag ñu ngi alerter te it ndaw ñi nee ñu ñoo ngi organiser wu ndax suñ leen ko fajalul ñoom ci seen bopp dinañ ko fajal seen bopp ma ne ko point mu jeex réew moo xam ne léegi bëri bu ñuy génn agresseurs yi la ñuy àndal football bu amee tas agresseurs yi nekk ci mbedd mi di sàcc di dugg ci mbedd yi vraiment terrorisme bi am ci réew mi war nañ koo lijjanti mu doonoon seen xibaaru buzz dig beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz